Le président n'a pas rassuré les Sénégalais, puisqu'il a évité de parler de ce dont il faut parler. Pourquoi il a signé de manière illégale les décrets qui ont octroyé Saint-Louis, le bloc de Saint-Louis et de Kayar à Franck Timis Pourquoi Euh, Ali Ngouindiaï a-t-il le besoin d'inventer une histoire en disant que PetroAsia avait une grande capacité financière technique et PetroAsia a été créé le 6 mars 2012. Entre il est impossible d'avoir non seulement les capacités techniques et financières, il est impossible d'avoir une Pourquoi il n'a jamais réagi à nos lettres Pourquoi il n'a jamais réagi à nos manifestations Pourquoi laisse-t-il Franck Timis emposer tout cet argent-là Voilà les questions qu'il faut poser. Et c'est ça qu'il faut régler dès maintenant. Autrement dit, le combat continue après la démission d'Aliou Sall. Aliou Sall n'a pas démissionné, hein, parce qu'il n'aurait jamais dû être à la caisse de dépôt et de consignation. Son frère, le président de la République, comme il dit lui-même, euh, avait dit qu'il n'allait jamais le nommer par décret. Donc qu'il soit à la caisse de dépôt et de consignation, ça, ce n'est rien du tout. Ce qu'on lui demande, c'est de quitter la mairie de Guédiawaye, parce que ça ne lui appartient pas. Maintenant, Mbaké, Touba, Douloutout ici Sénégal. Mangi Grem, centralier général des Mourides. di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér ak wérle yàlla bàyyi ko fi ah, liggéey bu mu sumb ah, yàlla jàppale ko ci yàlla may ko ngërëmal Serigne tuba ah, Serigne bi nag nee nañ ko mu ñaanal senegal mu ñaanal ñu yàlla def fi jàmm jàmm nag lu ko lal mooy dëgg la lu ko lal mooy justice jàmm lu ko lal moom mooy suñu gaz bu ko gars yi bëgg aki moo ñu delloo ñu ko loolu moo waral fii suñu tànk tey ñu ngi encouragé parce que Mbacké du lu ndaw euh, lii première manifestation la jàpp naa ne fileeg diir bu gàtt ay milier et des milliers de personnes ñooy génn ne Macky Sall fank timis delloolu delloolu su gaz di Macky Sall fank timis Alioune Sall delloo leen ñu suñu gaz comme xale yi ñu ko waxee delloo leen ñu suñu 400 000 suñu constitution mais gis nañ ne le 19 juin 2012 dafa violé loi bi parce que nag jël lu day drogue Saint-Louis ak Kayar boo xam ne ñu bari ñu ngi ko bëggoon ñëpp xam nañ ko mu jë jébbale ko moom Frank Timis ci anam boo xam ne du dëgg parce que dafa inventé société bu ñuy wax Petro Asia ne Petro Asia mi ngi judd le 6 mars moom mooy ndeyu Petro Tim mi ngi judd le 6 mars doom ji mi ngi judd le 19 janvier. donc yaay ji doom ji ñu euh, ma tuddee ci moo mag yaay ji doom ji moo moo mag nday ji loolu na mënta am xam na ne loolu dëgg donc décret bi euh, loo ay tàppale ay njuuj njaaj ñoo ko lal kon nag loolu Macky Sall daf ñu war a wax ñun lu tax mu def loolu waaw waaw kon nag ñooñu donc donc donc décret bi maanaam c'est un faux décret léegi tax na ba euh, Franck Timis ak ay sociétés am ci ay milliards ak milliards ah am na ñu fi topp ñoom Khalifa Sall pour un milliard trois xaw ma un milliard quatre di leen tuumal ci loolu mais fii cent quarante wala cent cinquante milliards de francs CFA la dugalagum ci poste bi. en tout cas nous demandons que qu'il soit inclusif que tous les segments du Sénégal tous les segments de de de l'État du peuple. de la population soit représentée, en tout cas avoir un œil sur ce qui se passe à travers euh, les signatures de nos contrats. Pour de un élan plus naturelles. inclusif, euh, justement, qu'est-ce que vous comptez faire euh, dans d'autres situations Parce qu'aujourd'hui, vous le dites, euh, si, si, si, des gens sont venus, le nombre qui était vraiment escompté n'est pas là. Qu'est-ce qu que vous comptez faire exactement Euh, pour ne pas faire comme tout le monde, euh, qu'est-ce que vous comptez faire Comment les gens euh, qui sont escomptés d'être là ne sont pas là Vous avez fait, une mobilisation. Ce pas de la politique. Ça, ce n'est pas de c'est les politiques qui, par les, leurs meetings, convoitent des cars, donnent de l'argent. Tous ceux qui sont venus ici se sont déplacés par leurs propres euh, moyens. cest à la volonté d'abord. Tout le monde qui se sont déplacés, c'est des citoyens, des patriotes qui aiment leur patrie. Et puis c'est une première, ce n'est que le début. Nous comptons vraiment euh, faire d'autres actions, c'est-à-dire pacifiquement, euh, à travers les euh, chefs religieux, à travers les notables. D'ailleurs, demain, euh, nous comptons le, la art Lignobok de Djurbel compte organiser une manifestation. Donc nous comptons se, euh, faire une union régionale vraiment pour mieux benn société nigériane bu ñuy woowee AZ Petroleum AZ Petroleum dañu jël dans les normes internationales dañ ne 3000 kilomètres carrés bloc warut a ëpp lu ko lu ni toll. dañu jël superficie Diourbel yëpp 17000 euh, kilomètres carrés yi nga xam ne moom la ji moom la Diourbel am et 600 et quelque la ñu jëlandoo joxandoo ko benn société AZ Petroleum comme benn bloc. dañ ko defal sous forme de location chaque mètre carré di fay 15 dollars loolu li ñu ciy wax mooy dañ ci 15 euh, dollars yooyu Petersen Petrosen lañ ciy jox ak suñu collectivité locale yi te jàpp naa ne xaalis boobu ñëwut. kon ñun kuy wàllu yaan xam nga pétrole Saint-Louis offshore bu ballee naam danañ ci am waaye waa Saint-Louis bu waa Sénégal yëpp a koy kii mais waa Saint-Louis ñoo koy jë mais ñun am na Diourbel AZ pétrole boo xam ne dañuy def suufu Diourbel yëpp sous forme de location te nit ñi xam ne nag suufu Diourbel ci la Touba nekk Touba titre foncier la boo gisee sax demb ñi ngi wax ay tere yuñ fi wax ak yooyu parce que li mu nekk titre foncier moo tax ñu wax may ñaax suñu sëriñ si Macky il est en de faiblesse nañu fexe ba mu wax assemblée mu yaxal li nga xam ne moom la ko sëñ bi di wax député yi voté ko Touba am statut ba képp ku fi defate buñ lay topp mu nekk ci loi parce que nag dana am ndaw loo xam ne yaa ngi mu war a agir ci yow te bu am lan teeg waaje lu ko ci fekk ëllëg